ñoo ngi àddu fii ci euh, institut Hikmatul Yawmi pour l'éducation et l'enseignement islamique centre Cheikh Mouhamadoul Mourtada nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala ngeen woote ci fixe bi 33 951 49 44 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale li nu tàmbali woon démb te mooy ndigalul sëriñ bi lépp jëm ci liggéey ak jaamu yàlla te dem ñu andi woon dara ci liggéey ni mu amee solo ci ab jullit ak ni ko suñu borom tabaaraka wa taala eh, fonke ak eh, yonent bi sallallaahu alayhi ak Cheikh al Xadim eh, ñu andi tey beneen ponk bi nga xam ne ne sëriñ bi digle ne ko suba incha allah ci altine ji mooy jàng alquran ñu boole kook tàmbalib tool yi jàng alxuraan nag eh, alxuraan mooy ngànnaayul jullit rawatina Sëriñ mi nga xam ne ne moom lañu yaakaar àdduna àllaaxira day wax ne kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi téere bi kat mooy jàngal alxuraan ci lañ yaakaar yërmande yàlla ci lañ yaakaar mucc ci musiba yeeg balaa tamit àdduna ak àllaaxira lu nekk wax na ko ci alquran xiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi sa sidqi jàng alquran mooy sama koom mooy sama daraja mooy sama taraanga itam jàng alxuraan gi may jàng alxuraan ci laa amee ak kawe ci sama borom am ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba tax na doy na rek misaal moom ni mu fonke woon alxuraan nga xam dafa taxawoon ak moom dundam gépp waaye waa këram yi muy njabootuk boppam gi néew na koo ci gis ab nataalam te yorut alxuraan moo xam euh, góor yàlla yi la wala soxna yi waa kër sëñ Tuubaa na koo ci gis ab nataalam te gisoo gàddu ab kaamil te ñi nga xam ne dund nañ ak ñoom tuuti man mi nga xam ne ni day dund na ma ak ñoom tuuti nekkut ne dañuy yorub kaamil ngir fotowu ndax ñoom dañ nañ set nañ wicc ci gisal waaye seen jataay yëpp jàng alxuraan la kon loolu rek war naa tax ñu fonk alxuraan baax a baax Sëriñ Tuubaa mas naa wax ne dénk naa leen ñeent yi dénk naa leen julli ndax bu ñuy lim jullit ñi boole leen ci denk naa leen jàng alxuraan ndax bu ñuy lim ñooñu suñu borom boole leen ci bu suñu borom di lim waa këram boole leen ci denk naa leen jàng xasida ndax bu ñuy lim sama waa boole leen ci denk naa leen liggéey ndax yooyu yëpp kat bu ngeen liggéey du ngeen ko mën kon nga xam dara mënu cee bàyyi morom ma waa alxuraan muy sëriñ daar yi jàngale alxuraan wala daara yi kaamile wala ñi nga xam ne dañoo taqoo alxuraan ñooñ njabootu yàlla ci kaw suuf te damaa jàpp ne bu fekkee suñu borom tabaaraka wa taala dafa tegee ab nat boo xam ne nii kat kenn mënu ci dara réew yi gën a développé ci àdduna lu nekk def nañ ko mënuñ ci dara kon nag dara tanewu ci dem seeti njabootu ki tege nattu bi ne leen wax leen nag dañoo bëgg ngeen waxal ñu ki leen njaboote ne leen lii nañu yërëm te dimbala ñu te teg ko suñ borom ñëpp la moom waaye nag dafa féete woo waa alxuraan ne ñii moom dama leen a féetewal sama bopp ñooy sama njaboot yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ci hadis ahlul qur'ani hum ahlullahi wa xaasatuhu waa alquran ñoom ñooy njabootu yàlla gi mu jagwal boppam kon xeex bi ñuy xeex coronavirus waroon nañ cee boole ba mu fés lool waa alquran maanaam état bi waroon na cee boole jàngalekat alquran yi muy sama maas gi di di yori daara ak ñiy jàng alquran ak waa daaree kaamil discours yi ñu def yëpp mosuma cee dégg benn yoon ñu tudd ci baatub ñaan wala ñu tudd ci baatub dellu ci yàlla te loolu ci la bokk ndax léegi tubaab yi sax ñoo ngi jëfandikoo baatub loolu maanaam delluwaat ci yàlla rawatina na ñun ñi nga xam ne ni nee nañ ay jullit lañ kon yaakaar naa xeex bi dara gënu ci woon a gaaw dara tanewu ci woon luñ mën a def ci saahir rek ñu xam ne mbirum baati nit mi ngi ci bu defee ñuy seeti njabootu yàlla eh, bégal leen ne leen dañoo bëggoon nag ngeen waxal ñu kilifa gi leen jaboote ne leen ne ko nañu jàppale ci lii mu dañ bu ko defee ñu jàng alxuraan jàng xasiida tudd yàlla saraxe bégal gone yi buñ ko defoon rek mu dañ yàlla xam na ko waaw waaye nag moom moom teewut ndigal li nga xam ndigalul sëriñ bi la nga xam ne moom mos sa jóg ci yàlla te delloon nañu ci bu baax a baax ñun nañ ko jëfandikoo bu baax muy jàng alxuraan ak jàng xasiida ak ñaan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 in uridu illa al islaaha ma stataxtama tawfiqihi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh